Mba koli a60 Mba koli a60 Mba koli a60 Mba koli a60 Mbakoriyaangi Mbakoriya Mbaxol yaa ngi feex Mbaxol yaa ngi feex Mbaxol yaa ngi feex Mbaxol yaa ngi feex Mbaxol yaa ngi feex Mbaxol yaa ngi feex Mbaxol yaa ngi mbah xool yaa ngi feex borom sikkim bi ma bëgg ma bëgg ko <laughs> mais Malaw. mais Gajaga Cerno. mais Ñaaxarañ Lo mais waa Limbour. mais waa demee noonu. mais doom yaay di hmm. góor. non loolu daa mën a ñàkk léegi mu def leen loolu problème. le premier. jërëjëf le premier janvier mooy sama anniversaire. fekk foo ko defee. Thiès laa koy defee. mosuma la bett mais naa la bett yow. mais dama bëgg nga def lu vidéo bi. day baax. Aliou Ndiaga. jàmm la démb X6 bu weex ngeen yoroon de. ah. mais Moussa Moussa li mbaa jàmm la mais dem exercice bu weex ngeen yoroon de ah man da jaaxal ngeen ma ci li ne bëgg naa ko xam lii dem exercice bu weex la ngeen di tey ñu ni bii ah, da jaaxal na ma kii maa teyu yàlla la maa teyu yàlla heure boo génnee dëkk bi yëngu ça c'est mes ça c'est mes Malen gwa ou, euh, me zemi lor, me zemi desnef, sa se men vwazin de valeur. Lò lè nwen yon yon yon yon, mwen yon yon yon foto ou. Non, yon yon yon foto ou, apè plezi. Amou bène mouski lò. Ile lade, mate yon yon yon yon yon. Mate yon yon yon. Mwen yon yon yon yon. nguramante bi nga laal <laughs> ci li ngeen ne daal bëgg naa koo xam ngeen ne bëgg naa koo xam <laughs> nguramante bi nga laal <laughs> ci li ngeen ne daal bëgg naa koo xam man la tere am ci mim rew de barke alquranu karim nimbal mom suñu borom dong lu mën a ñew ci yow rew mom nop nañ la yërëm mom dem bu waxtee ngeen ni militaire bi